ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mu génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñuy ànd ak yéen fu boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti man mën ngeen a jokkoo ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien. bokk jullit alxalifatu am li tarixati muridiya xafidahu llahu taala wa raha muy kaddu yu jëm yu jëmale ci mboolem bokk julli yi ci réew yëpp ak mboolem bokk taalibe murid yi sañu digal sañ leen a tere kon ci ndigalu sëriñ bi ginnaaw bu mu nuyu ñëpp di ñaan ñëpp di dellu siwaat di dellu ci alxuraan li mu santaane rek ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون kon xew-xew bi nga xam ne moo xew ci biir réew mi ak ci lenn ci réew yi ñu jëlee muy li ñuy wax zahira zahira mooy lu ngeen ci def phénomène loo xam ne lu xew la te kenn xamul lu doon mooy ñi dugg ci biir gaal yi di dem bitim réew ngir sàkku ji alal lu ñu dundale seen njaboot ak lu ñu tedde ba xam ngeen li xew lépp xew xew ci muy jéye ju réy réy te alxuraan benn bakkan bu faatu rek lu diis la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 kon ñu ñaax nag ñi nga xam ne ay bi Sëriñ Tuubaa te digal ak tere képp la seq ñoom képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa nga xam ne lii du sab cër ndax lii lii ñuy def xarula la te alxuraan dafa wax ne famshu fi manaakibihaa wa kulu min rizqihi kon jug sàkku ji teraanga li da ko santaane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 kon loolu ku ko def itam xaru la te lislaam bëgg ko xaru ndax xaru kat diis na kenn yéenewu ko sa mbokkum jullit ndax ku ci faatu sawara nga jëm ndax ku rey sa bopp te ko sawara di jëm kon wala tulqu bi aydikum ila tahlukati kon loolu dara jiituwu ko ci lu mel noonu kon sëriñ bi nee na ngi ci ñaaxaar taalibe yëpp ñu xam ne adduna jafe na jamono jafe na waaye nag suñ borom mi ko indi baax da baada usri yusra kon euh, sëriñ Tuubaa